Serigne Ibrahima Mbacke Serigne Ibrahima Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1912 ci dëkk bii nag di ndaam daaru xalimul xabiir ci dëkk boobu nag la feeña jamono ci at mi nag di atum 1912 di doomu Serigne Touba Seexul Xadim ak ku ñuy wax soxna Faatumatu Suxra moom Serigne Ibrahima Mbacke nag amul kenn nag kum bokkal nag kii di soxna Faatumatu Suxra nag ak Serigne Touba Xadim Rasul benn doom la nag ci waajuram wu jigéen wii di soxna matu Suxra mi laataa ñuy xuus sax ci mbirum Cheikh Ibrahima Mbacke ñu leeral leen leen waajuram wu jigéen wi nag di soxna soxna faatumata suxraa naarub gànnaar la woon ab sërif itam nag la woon bi sëriñ tuubaa seexul xaddiim itam demee nag ci réew moomu nag di gànnaar lañ ko jébbaloon soxna sii nag ngir mu dëkkoo ko ginnaaw bu mu jógee gànnaar nag la ko indaale nag ci réew mi doom jëm ci njëkk a amitam mooy sëriñ ibrahima mbàkke mii tam faye ko nag yonent yàlla ibrahima soxna faatumata suxraa mi itam ci loxoy xaadim rasul nag la nekk ba ni sëriñ tuubaa xaadim rasul génne àdduna ci atum 1927 mu wéy nag nekk nag ci loxoy doomam ji nag di sëriñ ibrahima mbàkke nekk itam nag ci dëkk bii nag di kër Madieng nekk itam nag ci wetu ndindi buggul ci dëkk boobu nag la soxna Faatumatu nag nekkoon ci dëkk boobu itam nag la génnee àdduna ci dëkk boobu itam nag lañ ko denc moom soxna Faatumatu Suxraa mi nag di waajuru sëriñ Ibrahima Mbàkke ku bëgg a gis nag fi soxna Faatumatu Suxraa mi tëdd soo demee kër Madieng nekk itam nag ci wetu dëkk bii nag di ndindi buggul daa ko fa fekk Cheikh Ibrahima Mbàkke nag miy doomam bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag moo ko laaj lu nag ci njaareem dalal ko alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ngir mu ko nag alxuraanul karim ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw sëriñ ndaam abdourahmaan loo jébbaloon nañ ko nag sëriñ mouhamadou dem bu njaareem ngir mu jàng fa nag lii di xam-xam ginnaaw sëriñ mouhamadou dem nag ci njaareem dem na itam nag ci atum 1930 ci dëkk bi nag di daaru salaam tiip ci sëriñ mouhamadou lamine jóob dagana bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ touba xaadim rasuul ginnaaw 1930 ci dëkk bii di daaru salaam tiip ci loxoy sëriñ mouhamadou jóob dagana sëriñ ibrahima mbàkke itam nag demaatoon na ci réew mi nag di gànnaar ngir nag am njàngum xam-xamam comme nag ni ko ay magam nag defee gànnaar nag fa la jeexale am njàng nag delsiwaat itam nag ci réewum cosaanam di Sénégal bi mu ñëwee Sénégal nag dafa wéy nag nekk nag ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bu leen fàtte na sëriñ Ibrahima Mbacke ginnaaw ba mu feeñee jamono sëriñ Touba Xaadim Rasoul sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo nag la ko jébbaloon di ko wax ne nag mooy sëb cër loolu ma waral nag sëriñ Ibrahima Mbacke saa bu masaa jàng nag ba ñibbisi loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo mii nag lay nekk ndax Seexul Xaadim kat doon na xamal sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo di Ibrahima Mbacke mooy sëb cër mu wii nag nekk nag ci sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ba mat a taxawal kër ñu boole ko ku ñuy wax soxna Atta Mbacke soxna Atta Mbacke mii sax moo meññ ab taawam mu tudde ko sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo muy sëriñ Ndaam Mbacke moom soxna Atta ginnaaw soxna Atta Mbacke dëkkoo waatoon naag beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Faati Faal soxna Faati Faal mi nag moo meññ nag geneen njabootug sëriñ Ibrahima Mbacke gi ñu mën cee ràññee sëriñ Xaadim Mbacke mi mu faye woon waajuróom Xaadim Rasuul mën cee ràññee Cheikh Mamadul Faadal Mbacke mi mu faye woon magam nag Cheikh Mamadul Faadal Mbacke mënoon cee ràññee sëriñ Mamor Mbàkke muy kim faye woon maamam sëriñ Mamor Anta Sali Mbàkke man cee ràññee nag kam faye woon magam ji Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke man ràññee itam nag kam faye woon jigéenam ba di soxna muslimatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo itam nag la nekk ba ni sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo génnee àdduna bi sëriñ Ibrahima Mbàkke moo doon nag dëkk bii ñu tuddee Mbàkke Baari di dëkk boo xam ne nii itam sëriñ mu bokk itam nag ci Mbàkke Bawal di ngir Mbàkke Bawal foofu itam nag la nekkoon sanc na nag beneen dëkk ci atum 1951 di daarul xadim daaru xadim nag mi ngi ci wetu bétoo ak dëkk bii nag di Touba Fall ak kër gi mu amaatoon nag ci biir Touba ñu koy wax kër mag moom jamono ji kër googu sax ci la génnee àdduna ci atum 1955 mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko xoole xaadim rasuul topp itam nag ci ginnaaw sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ndax Cheikhul Xadim nag doon na xamal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo di ko wax ne nag sëriñ Mbacke ab taawam sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo la ko tuddee ba ni Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke génne àdduna ci atum 1945 mu fab léppam nag jébbal Cheikh Mamadul Faadal Mbacke mi toogoon nag ñaareelu toogaayu xaadim rasul di ko xoolee nag nam doon xoole Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke jàppee ko itam nag nam jàppe woon sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ci atum nag la sëriñ Ibrahima Mbacke nag wax ne sëriñ Touba xaadim rasul nag moo ko feeñu di ko xamal ne nag Ibrahima diggante ba ma siñante woon ak suñ borom nag matul ma ñibbisi waaye nag yow mii nag laay sàkku nag nga dem mott lil ma ko Cheikh Ibrahima Mbacke nag mi ngi ñuy xamal ne ci weeru koor 1954 nag la ko Serigne Touba Seexul Xaddim feeñu lu mat ñetti yoon ñetti dëkk nag yu wuute bii nag di Mbacke Bawal ginnaaw bu ko Seexul Xaddim nag waxee kàddu yooyu nag ci lu tolloog ñetti yoon ci ñetti dëkk nag yu wuute ñëw na nag ci ki fi toogoon toogaayu Xaadim Rasuul di Cheikh Mamadul Faadal Mbacke di ko xamal ne nag sama waajur wa ci weeru koor gi ñu nekk nag feeñu na ma ñetti yoon di ma wax ne nag naa dem nag ci réew mi nag di Gabon ngir mottalil ko nag tukkee mba ndax kat lam siñente woon ak suñu boroom mooy at yi yonent yàlla soye bu nag siñe woon ak suñu boroom at yooyu nag la siñe woon ak suñu boroom te at ya nag matul waaye man mii nag la doon sàkku nag ngir ma dem nag ci réew moomu nag di Gabon nag ngir mottali ji itam nag tukki bi Cheikh Mamadou Fadal itam nag àndoon na ceeg nag rakkam jooju di Cheikh Ibrahima Mbacke ñaanal ko itam nag ngir wax ko itam nag mu dem Cheikh Ibrahima Mbacke itam nag mi ngi doon xamal Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di ko wax ne suñu waajur woon a Xaadim Rasul xaalisub kenn lépp loo xam ne nii daal maa ngi koy def nag ci tukki bi na nekk nag sama yëfi bopp nekk itam nag lu ma lew te ni may demee nag ba ni may dellusee moom mooy ki may aar fépp fu ma war a jaar itam nag moom moo ma koy wax yoon woowu itam nag Cheikh Ibrahima Mbacke waxtaanoon na ceeg Cheikh Moussa Ka di ko wax nag li ko Cheikhul Khadim wax nag ci tukki googu nag mu war a dem nag ci Gabon lool moo waral itam nag Cheikh Moussa Ka itam nag def na ci ay way tudde ko yokkub jazaawu sàkkoor soo demee nag ci way yi ci Cheikh Moussa Ka def mag ñuy leeral nag Cheikh Ibrahima Mbacke yoon wii nag naka la def nag ba waaj ko ak itam nag lan la ko ci Cheikhul Khadim wax ginnaaw bu mu ko feeñoo ci dëkk bii di lugaloo ndakaaru ba ci mbàkke bawal ñu teewlu ko déglul ma wax la la waral tukkeem ba kon nga siyaare ko ba xam ca yool ba Cheikh Ibra Mbàkke ne ca weeru koor wa la Bamba ñëw ca moom digal ko yoon wa gis na ko mbàkke gis ko fi ndakaaru dellu ko gis luga ba doollee waaru mu naa ko bu ñu waree demal ma kongo ngir mottalil ma hadiya nee ma gongo hadiya soxay bu diggee woon ak Moussa laa diggee woon maag yàlla rabbu Isa moo di juróom yetti xatam yu mata mata boole koog yu rëy te doo tawat loolaay canug jigéenu xóorul a laaxira dañ ma doon gëroo ku ne ne yaa may jël te naa sama goro ma denc laaxirata gedd duniyaa fase ko faw faw doona suniya du ma ko banda zawji maa ko batta na dem sa ya góoru mbul ak ñooñ xatta biantul lasi la daa nasaara turra bi ma la dullahi lahumul turra waylun liman ilan nasaara maala li kay yanaala miknatan aw maala lii la ma seex ibra xibaar ca baayam loolaa waral tukkeem ba moo dib yaaram bambankonaa duggal saxaar ba galwaa ngir mottali nattu yu xànd ak balwaa saqa ala shaytaani ànd galwaa kaw nii xadima man kafaanil balwa bul paas ci xaalisub keneen ku dul yow li feeg ba ngay dellu si yaay man maa ko kori wa am fukki fan ak juróom-ñaar mu xëye mbàkke baari dem duggi saxaar te yooya fan la jàll way ndakaaru bank ba jox ko xaalisam muy waaru mu dal di ñaan boroom ndaruk ndakaaru alee la tuuru koo nga bël seeg daaru mu ne ko ñeen fukki junneem ngay tonti te ba fi ñeen fukki junniy garanti wala nga toog sa bon yi duñ walaabal doo amee passeport lii nga fóot doo laabal keroog la dugg dem giseeg boroom ndar koñ ci lay mbër ñeent fukki junni yu mu dénkoon banque la daal laaj paase ko ceernoo tekki ila nabi wajaxtu fin bakaaru zikran bihi xat kub kibal makaaru gaawu la daal xëye mbàkke baari manaa ko ceerno ibra yaa di ngaari lu bukki wiir wiir dana del si ndaari yàlla na nga del si mbàkke del si baari xaritu yow ma sabti raabi en safar li xidmatil muxtaari afdalil bachar bambaa ko wax jant saful ak baada du ko teree palamtu bambaay waada loolu mooy li ko bind ci laataa nag muy génn nag réew mi jëloon nag mbindum Cheikh Moussa Ka wala soo jàngee nag mbindum Cheikh Moussa Ka mi ngi wax ne nag ginnaaw bu Cheikh Ibrahima Mbacke nag tàggoo magam ja Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ndakaaru nag la dem nag ngir ñaan nag autorisation nag bu ko yóbbu nag ci réew mi nag di Gabon waaye nag lii di autorité coloniale yi fi newoon nag 400000 nag lañ ko doon laaj nag ci jamono jooju di ko wax ne nag 200000 yi nag mooy garanti nag boo fii bàyyi yeneen 200000 nag mooy looy passé ngay waaj man ngaa fomm waaye nag Cheikh Ibrahima Mbacke nag xamoon na ne nag ndigal li nag ci tax itam nag lépp loo xam ne nii nag def na ko nag ci wàllu pexe def na ko nag ba am 400 millions yi nag ngir mën dem nag ci yoon wi mi fi jógee nag moom Cheikh Ibrahima Mbacke bisub samedi fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru korité ci at mi di atum 1954 ci dëkk bii nag di Mbacke Baari gi nekk nag ci Mbacke Bawal ginnaaw bu mu jógee Mbacke Baari nag ci Mbacke Bawal mi ngi jaar itam Kaolack ginnaaw Kaolack Tambacounda ginnaaw Tambacounda nag la jaar Kaay Kaay nag mi ngi ci Mali ginnaaw Kaay nag la dem Bamako la dem Bouaké ginnaaw Bouaké nag la dem Abidjan waar foofa nag ma nga fa daloon kër Mame Guèye Abidjan nag la jële gaal gu ñuy wax général Leclerc ngir mën a dem nag Grand Bassam ginnaaw Grand Bassam nag la dem Lomé ginnaaw Lomé nag la dem Douala ginnaaw Douala nag la dem Cotonou ginnaaw Cotonou nag la dem Libreville soo delloo ba tey itam nag ci mbindum Cheikh Moussa Ka ginnaaw bu Cheikh Ibrahima bàyyi ko nag Mbàkke Baari ci Mbàkke Bawal bisub gaaw fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru korité dem nag ci ndigalul dem Gabon fépp foo xam ne itam nag jaar na fa ba nim jógee Mbàkke Baari nag ba nim eggee nag Libreville Cheikh Moussa Ka itam nag mi ngi ñu koy nettali ak yoonu ngan gi ñu teewlu ko gaawul la Bamba xëye Mbàkke Baari gaawul la Cerno xëye Mbàkke Baari ka xëy ca jay sasin fa Mbàkke Baari moo xëy ca jaxan sasin fa Mbàkke Baari wallaay ka yee salaat bi sub tukkeem ba jihaar na xaj na omra xam na yool ba xaalam ja ak jalaal ja moom la sàngoo fab nooru dafaan ak nooru jalbin ràngoo dëddoom ga ak tawxiid ja moom la yóbbuloo wettalikoo yàlla ak sëriñ bay delloo keroog la war wataam ba jaari kawlax tàggoog murid ya xam ne baay ba du ko nax Tambacounda la jaari kër Ibra Amar murid ya teeru ko teral ko di ko mar am na fa ay fan di bëggal murid ya waar leen ca baay ba tey bugal marid ya xëy jàll xaay wàcc fa jaari Bamako ñu naa ko siggil teen sa baat ma ko mu am fa ay fan jàll wey bu waake ñu naa ko yaay doomi sangub waa Mbàkke mu dal di war wataam ba jàll Abidjan murid ya dal di xam ne xam nañ maxraja murid ya nekkoon Abidjan koy teeru seen watiir ya léppay tuuru nee na ma fanweeri watiir ak ñett ñoo ma fa doon teeru keroog ni sat góor ñaak jigéen ña ñëpp a ànd sañse teeru ni wer mel ni bàmbaa delsi mu jaari kër seex mamma géey fanaan fa juróomu fan ñaanaa siyaare naa fa mu daal di tàbbi gaal gu tudd général di la kaleer garaat ya raw nab général mu am fa ay fan war ca gaali ndox ya jàll garam basa ñu joor ko sox ya asaba an nilaahu fii garam xablu mubarisi wa an di xal basa wajahtu fi kabla bisa maaxat kafaaniya addu wan hobbisa mu jaari lomme jàll wey duwaalo diroy ci doomi doomi astawaalo jaar kotunoo pake ba teer limbar wali mu rocci bood ya bàyyi ba naa ko yaa wali nafaani naafiu fii limbar wali bi maa bihi yaxbitu nii kulla wali loolu mooy li Cheikh Moussa Ka bind nag ci yoon wi ni Cheikh Ibrahima Mbacke nag jugee ci dëkk bi nag di Mbacke Bari ba ni mu eggee nag ci réew moomu nag di Gabon ginnaaw ba mu eggee Ibrahima am na fa ay fan ngir mottali nag liggéeyu waajuram ba ba ci tëbaski 1954 boobu sax ci réew moom nag di Gabon sax la ko tëbaskee ginnaaw bu mu eggee itam nag ci réew moom nag di Gabon autorité gabonais yi ñoom itam nag kaaraange gu mat sëkk nag lañ boole woon ak Cheikh Ibrahima Mbacke ñu aar doomu Cheikhul Khadim bi ci diirum nag li muy nekk nag ci seen territoire boobu boole nañ ko koo xam ne itam nag ku xamoon Cheikhul Khadim la koo xam ne itam nag diir ba fa Cheikhul Khadim defoon itam nag ñoom ñaar itam nag fekkante nañ fa muy kuñ doon wax Samba Ndiaye Samba ngi doon xamal nag Cheikh bi nga xam ne nii seexul xaddim nag am na ko ci réew nag di Gabon ñoom ñaar nag lañ boole woon fu ñu nekk Samba Ndiaye moom nag lañ boole wan ko fépp foo xam ne nii nag seexul xaddim nag jaaroon na Ibrahima Mbacke nag jaar na nag ci Gabon ànd fa ak Samba Ndiaye wala Samba Ndiaye moom nag wan ko ko Cheikh Ibrahima Mbacke itam nag bi mu ñibbisee nettali na ko nag Cheikh Moussa Ka Cheikh nag tënk na loola itam nag ci ay way ñu teewlu nag diir bi nga xam ne nii Cheikh Ibrahima Mbacke nag egg na ko Gabon ak bépp dëkk ko ko ci dëkk boobu nag di Gabon ci ay way nag yu ñu ko Cheikh Moussa Ka defal ñu teew teewlu ko dimbar wali am na fa ñaaru fan di wër barab ya Cheikh Bamba daal liggéey ak garab ya ak jullikaay bu sayxu Bamba julli woon Cheikh Ibrahima Mbacke julliwaat fa la mu man mu rocci mbóot ya daal di wéy port santi te wisituñ passeport ba ngir santante tubaab ya ak sandarma yaak soldaari sax kenn mësu koo commandé fii ba kaasa kayitu vacciné wa ak passeport ba ak carte d'identité ak aller retour ba na mu raw député yaaki général kum jëm ñu naa garaama Sénégal doomi grand marabu Sayxi Bamba dugal première ba taxaw ma yomba waa góor wa dañ koo sàkkaloon ay garde naa wattu leen ko moo di doomi gaynde keroog la wéy pont noir ñuy waaru waa góor wa teeru ko wu baag daaru mu xam ne teeroog teerle ak di maajal ñu rowul ak toroxal ak di waajal mu wéy baraasi am fa ay fan nit ki fan ak lëf yàlla na yokk aw fan alxaaji mbay caam moo ko fab dalal ko réew may siyaare si murid ya yor ko foofee la julli juróom-ñaari murit juróomi tijaan réew mën a cay gi la ay xar mañ tabaskee nee na junni lañ ko jënde seeni borom di jànni moo fay ko rek bamba amul muurum koor julleem nga wéete wéet gisul geneen góor kuroo fi xat af la xamante sàkka la bamba way def muuri koor xat sàkka cheikh ibra wey jàll fa léew pon wéeli julli fa làmbar tubaab ya boole waa góor wa boole kook magum sàndarma mu tudd sàmba njaay mu woon ko réew ma am na juróom ñeen fukki at tegal na lu mat juróom benn ci ren màggat na nee ko maak cheikh li maag borom kun diggante postub lu di maag lambar na mësunu fee tàggoo ba duudu merenu te moom at lañ ma fi déplacé maag bamba ak ñañ sànki woon farañse téeméeri góor yañ sànki ak ñeen fukk seen bopp yaa ngi yow sa baay mooy pànk sa bàyyee noonu du ma ñi ngeen daa sànk wallaahi ab dërëm du wecceeg tànk tubaab yi ak soldaar sa xëy nañ di ko joor sox soxya di takk ba ca waxtu yor yoor ba mu wuree ñu seen mu muuruy bind labbee naa ko bamba yaa ngi dund kafaan baax yi mamaata sarmada wa bi baxaa iya yasurru loola du rot ci ruuga yàllaa ko ëmb ak Moustapha cay góor ga keroog la Sàmba Njaay nu yoog Cheikh Ibra wan ko fa saamoo réeg ñeneen ci xabra ak ndaw su doon mooy yàlla fii maa yomba fi kanamam ngir naqaral seex Bamba Cheikh Bamba jéppi ko ba génn néeg ba muy sànni gaal ya dal di faatu booba wan ko fa teen bu Bamba bënn ngir mar muy ball mel ni meew te dàq suukar nee na keroog Cheikh Bamba yor nag setalaam suba ba ngoon naanul ba weññe di ko faam mu bëgg jàpp julli waxtu takkusaan ngarda ya naa tey jaaraama sibtu balla nee na ko Bamba li mu fi def ciy xar baax su ko defoon ci xol yi réew mi sax baax waaye da koo fab lépp yóbbu senegal yow sax da ngay jël si bagage ci sunu gaal gaal gii nga tàbbi woon mu tudd fàkkool lamboona mbooti fulku ceerno doo gool man Samba Ndiaye du ma boroomi xar baax waaye boroom xéram yi ñooy xam waaju baax bi kël ma wan la fa sa bàyyi daa binde di tagg njool màkk te xiif ba ñande juróom ñenantu mango ñoo fa nekkoon ci jamonoy Cheikh Bamba yàllaa yor kun genn fa des léegi falaa di tooge man Samba Ndiaye léegi ma deeni googee bi jàkka yam daa jullee réew maa nga koy siyaare leer yay jolli dikkal ma wan la doju wiir wiir soriwul mat na juróom benn fukk ak ñett xasal ci kilomètre ma nga dunub maa yomba kenn du ko xuus sa bàyyi xut bu bël ba ma wan la labbe ya farom bañ jaaxlee ba woolu leen fañ daje woon ngir jaaxle te wax la seen limba di ñetti téeméer yu teg juróom benn fukk ak ñett yu wóor ñaadi français ñaadi labbey anglais ak nation yépp ñu wax ba xàggale ku nekk bindoon say wax ak say nattu ak say xiram taxul mu fàtte waxtu téeméer la bamba mooy góor yu teg juróom ñett fukk ak juróom yu wóor seex bamba ne loolaa di laayay baqara nattu bu nekk rey na téeméer ñuy xare teg nañ ma nattu yépp ak ya te mas la tee may xëy di jàng laaya ma dellu wax la waxi ceerno ibra ak sàmba njaay lambar na naa la xayra am nañu ñetti fan fataati mango ya di ñaan di julli di siyaare pàkk ya seex bamba julli woon na foofee ràkka jaayante fa xayrul wara njool màkka baa yaxatuhu fil bahri taxta sajara wal bahri musbidun walaanu may sumya ya ak darab ya Cheikh Ibra Mbàkke dellu wéy fa njuule fanaan fa ñaaru fan fanaanee xoole nee na ma taalibey jinee nga foofa yu ëpp nit ñi fuuf ka yaa fii koo fa ku yebbu gëm ku yebbu weddi gëm naa gumba dafay palamtu njàccaar gis naa mu jaari Kongo Belsi wéy ma yomba ma Masamba Njaay tegtal ko jéegooy Bamba mu wéy Gabon jàll ko wéy Conakry waa réew ma naa ko Ceerno Ibra yaa gore adiyati safat la daa Conakry leel Mustafa al Maahi bila Manakiri gaal nga di daw di daw ca géej ba daaw me te ma mbaa mu nemee malakanil maliku inda daawume maa xatta faaniya ida tasaawumi sërite mbakke ball réewum baafali dem nga bagal waa gaal ya joow la ba fële ila nabi wajaxtu inda baafali xab la bi ma bihi anaara mahfali lool mooy tukki bi nga xam ne ni Cheikh Ibrahima Mbacke nag defoon na ko nag ci réew mi nag di Gabon ngir nag mottali ji nag ndigalul waajuram Serigne Touba Xaadim Rasuul Cheikh Ibrahima nag ci dëkk yooyu ñu Cheikh Moussa Ka doon nettali nag ci dëkk yooyu nag la jaar ba ni mu dellusiwaatee nag ci réew mi ñu xayma ko nag ci lu tolloog fanweeri dëkk yoo xam ne nii nag Cheikh Ibrahima nag demaat na fa ginnaaw nag ndigalul waajuram xaadim rasuul tukki bi itam nag lu yéemee yéeme nag am na ci ndax Cheikh Ibrahima ci diirum ñetti weer ak fukki fan nag la def tukki bi tukki bi buñ ko méngaleeg tukkib sëriñ Tuubaa xaadim rasuul seexul xaadim nag ci bi muy dem ci géej gi bisub samedi nag la fi bàyyi ko Cheikh Ibrahima itam nag bi muy mottali ndigalul ab samedi la fi bàyyi ko seexul xaadim nag bi muy dem ci tukki bi ci dëkk bii nag di Mbàkke Baari Jolof nag la fi bàyyi ko Ibrahima itam nag bi muy dem ci tukki bi ci dëkk bii nag di Mbàkke Baari Mbàkke ba bawal nag la fi bàyyi koo fépp fu seexul xaddiim nag jaaroon ci gabon sëriñ ibrahima mbàkke itam nag jaar na fa itam nag ci gabon ba ci tabaski gi seexul xaddiim jullee woon ci gabon seex ibrahima itam foofu la ko fekk mu jullee ko itam nag ci gabon sëriñ touba seexul xaddiim itam nag mi ngi ñibbisi ci le 20 septembre 1902 seex ibrahima itam nag mi ngi jóge gabon ci le 21 septembre 1954 bisub talaata itam nag la seexul xaddiim egsi itam nag ci réew mi bisub talaata itam nag la seex ibrahima itam nag egsi itam ci réew mi ku jàngat tukkib seexul xaddiim jàngat tukkib Cheikh Ibrahima Mbacke da ngay xam ne nag baay moo yónni woon doomam ginnaaw bu mu ñibbisee nag ci réew mi ba giseeg Cheikh Moussa Ka nettali ko itam nag lii di tukki bi soo delloo nag ci way yi ci Cheikh Moussa Ka way mu ngi ko tudde nag sëricël di ñu wax nag nga nee li Cheikh Ibrahima Mbacke nag indaale ak nag ginnaaw bu mu wàccee nag Ndakaaru ci dëkk yi nga xam ne itam nag Cheikh Ibrahima jaar na ci ba ni mu egsee nag ci dëkk bii nag di Mbacke Baari Mbacke Bawal ñu teewlu ko sërica Mbacke marhaban wa sahlan yaa tàbbi géej ga topp mbóor ma ahlan sërica Kongo Belsi ak limbar wali ak doju wiir wiir lii sëricë waa Grand Bassa ak Casamance wër nga ko wër wër te gisoo fa kuy samaas sëricë géej ya Cerno Ibra géej nga yaa jàlle góor ya daam ba woon fa géej ya sëricë Cerno Ibra yaa gëm Bamba yaa taaru yaa tabe te gëm yonen ba yaa yokk njàmme yow mi dem maa yomba ba tax mu yendoo tagg sayxu Bamba Cheikh Ibra Mbàkke topp jéegooy baayam bitee ki biir tabee ni moom mooy yaaram yaa tax nu def yokkub jasaawu sakkoor yàlla na nga yokk Mbàkke Balla yaay góor Ahmadou Bamba fóore tazilu ma shabata lil musafahi axna yamini an azan wa midfahi nit yi fan ak ñett ci weeru tam xarit la ñëw ndakaaru gaaya teeru naa aret mu jaari kër Cheikh Modou Diop fadaaru xan yaa sitti maam jaara ma fiiru poroxaan sa tukki bee ma gën a neex dem makka may ma ca yool ba maag bétoo ak kanka bañaxal masiri faw xa xajjin wa jihaat la Bamba wax ca yool ba mooy sunu muraad xar baax ci kaw xar baax sosoo ci xar baax di xotti baax kenn mënulaa tere baax géej gu sosoo ci géej te dëkke duusu kenn mënulaa xuusu ku donn ay jaloore donn ndam ya yaa donn mbër ma ut nga làmmi mbër ya ñetti limoon bay fóoti di alxaaji nandoowu leen ci bàmba cay sunwaaj yàlla na nga boole mbooti ahla bahri ci darajaam ak mbooti ahla barri amina amina ne leen amina ci darajay Cheikh Bamba kay maamoona loolu mooy wayi ci Cheikh Moussa Ka defoon nag tudde ko nag sëri cëw yi ginnaaw bu Cheikh Ibrahima Mbacke nag egsee nag ci dëkk bii nag di Mbacke Baari Mbacke Bawal daa delluwaat nag ci ndigal nag ndigal loolu ko xaadim rasul nag santoon di waajuram cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag ñaanal na ko cheikh ibrahima mbàkke itam nag dem na itam nag ci barabu waajuram di sëriñ xamal ko nag ndigal li nga xam ne nii cheikhul xaadim nag joxoon na ko ko mu mottalil ko nag tukki bi ginnaaw bu cheikh ibrahima mbàkke nag ziyaare barabu waajuram woowu di xaadim rasul defoon na itam nag ak xasida tudde ko nag afdalul ziyaar di sant sëriñ tuubaa xaadim rasul nag ci yónni woon nag ci gabon yaatu daal la ci cheikh ibrahima mbàkke def di sant nag waajuram woowu ko bind ginnaaw bu mu jógee nag ci ndigalul waajuram nag di tukki gabon bi ñu teelu na xasida gi ci sëñ ibrahima mbàkke bindoon di afdalul ziyaar bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa sallama taslima qaala sayxu ibrahim almbakiyu bnu sayx alxadim zairan li rawdatihi sharifati alaa yaa xabuura saalihin alaykumu salaamun min allahi almuhaymini tayibu wa nahnu bikum min kulli sawda naxtasi naluuzu wa narju kulla amrin yuhabbabu arju ilayya wa bayti kacbatun nusibat wa saaxibul bayti cindi walxima harami darihiya baytullahi man jaa zairan bi harwalatin yuxsa bi azin wa xirfati ina allasina sacidu fi lmahraki mujahidina kulla aabin mushriki liya nawaalun kulluhum yaxbituni fiihi wa kullun zairun li watani bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa gayra xadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatulah rahmatullahi taala wa barakatuhu ya sayxana wa mawlana wa wasilatuna ila rabbina ahmadatna muhammad ibni habiballahi almakiy wa nafa'ana allahu bihim wa rahimahumullahu ma'a almustaqdimina walmustaxirina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ya xaadima almuxtaari wa ya saahiba alanwaari walasraari ataytukum li ziyaratikum wa li ziyarati hadihi allarihati li yaxfira allahu lii bikum jamica ma xaddamtu wa ma axartu wa ma asrartu wa ma aclantu min azunubi والذنوب والمعاصي ويعصمنا من الفضيحة السلام عليكم يا خطب الأقطاب ويا فاتح الأبواب ويا خوس الأخواش ويا من يستخش به أخاش يا خياس المستخيشين أخشني أخشني يا شفيعي وسيلتي هنا وخدم يوم السماء تمور وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man ata allah bi qalbin salim assalaamu aleykum ya imama alimamin wa ya saahiba alharamayn wa ya saahiba alimaani walislami walihsaani wa ya qaa'iman bi amrillahi arrahman wa xaftu bi baabikum allazi la turja'u wa quufa zalilin qaasidan nayla ridwan wa nayla maqaamin yawma alqiyamati mahaduhu liljinaan assalaamu aleykum ya saahiba haza almakani wa ya malika haza alsamani wa ya mudabbira alumuuri ahli diwan wa ya saahiba alkaramati warridwani jituka سائرا لك لتحول بيني وبين مالك نيرا ولتجمع بيني وبين مخدومك غير عدنان يوم يفتح أبواب الجنان سيدنا الرضوان بإذن الله الرحمن السلام عليكم يا أبا الرجال والأبدال والأوتاد ويا سلطان الأولياء والنخباء والنجباء والأمناء في جميع البلاد جعلت سلامي عليكم بكلامي وأقلامي وأقدامي هدية لكم في مقبركم ومدعكم ومنزلكم نائية kulla waqtin wa saatin an muksi fikum wa xiyaami li taqdiya hawaaiji kullaha zaahiraha wa bawaatinaha doona dawaraanin ila aljihaati an axraadin bila amraadin maha maraami salaamu aleykum ya saahiba alwusuli wa ya xalifata alrasul wa ya fihla alfuhul wa ya saahiba aludul zurtuka likay anaala bika shafaata yowma yaqumu annaasu li rabbi alaalamin wa la yashfacuuna illa liman irtada wa hum min xashyatihi musfiqun wa li tajcal واجعلني بك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين يا رب العالمين السلام عليكم يا مالك الطوبة ودار السلام ويا صاحب الجامع الطوبوي ويا باني المسجد في المقعة المباركة للاقتداء ببيت الله الحرام وبمسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة المنورة مع كل مرام تبلي بهما وبكما ولجميع المريدين والمريدات نيل حجة مبرورة وحجة مسرورة بالدخول فيهما آمين يا رب العالمين السلام عليكم minkum yaa man xulta wa xawluka alxaqu wa waaduka sidqu kataba allahu tabaraka wa taala anna bayta allahi alxaram tarfacuhu almalaikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sal allahu taala alayhi wa sallama maa amini wahyillahi wa yadxulu fihi maahuma katibu hadihi alhurufi wa tarfacuhu almalaikatu alayhim assalatu wassalaamu ila aljannati allati wa'ida almuttaqun maa jamici ma axtaara lahu min alkutubi walimtiati ila mahallihi alladi yakunu fihi maahum ay almuridina الصادقين والله على ما yaqulu wakilun fa hab lana bi an nakuna maakuma zahiran wa batinan amin assalaamu aleykum ya man xulta hadihi al abyata bi man xaala innama al amalu binniyat wajal bihi daariyaka al madina barakatan wa kaabati al masuna allamani bi qawlihi ilaya albayta rafian biya al mardiya la shakka fi kawniya billamini fihi wa bilkitabi wallamini mallakani allaminu wallaminu kitaba baaxin jaani taaminu wa hajjatan liman bi lofin irtada wa hujjatan ala muxaalifin xada zur man tuhibbu wa in shatat rabbika ddaaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamnacannaka bucdun min ziyaaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawaaru wa huwa allasi ayqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kalxalbi sawaaru yazuruka minni haysu ma kuntu yaa muhyi fuaadi wa ruuhi bilbishaarati zaatayi uqaatibuhu bilmadhi wa huwa bitaybatin wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru yazuruka minni haysu ma kuntu yaa muhyi fuaadi wa ruuhi bilbishaarati zaatayi على طي أخاطبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يزور وخاطبته وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور السلام عليك يا أسنى خديم السلام عليك يا من سحرت بالعبد الخديم السلام عليك يا مجاور الرسول السلام عليك يا من عاين أبا البتول السلام عليك يا جار البديع السلام عليك يا خادم الشفيع السلام عليك يا من خبل سعيك السلام عليك يا من سي xayra laka amruka assalaamu alayka ya man xussista bi xidmati xayri almursalin alayhi salaatu wassalaamu wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain salaamun taamun yaummu nuuruhu haadirana wa qaa'ibana wa nafuusu bihi bishafaati xiina ziyaaratina rawdataka almunawwara wa lariixataka almutahhara wa yanaalu bihi kullu muslimin wa muslimatin maa amma lahu wa jaarahu bijaahi kulli man lahu min rabbihi darajatun wa jaah amiin ya rab rabbil alamin ginnaaw bu Cheikh Ibrahima Mbacke nag bindee xasida googu nag di afdalul ziyaar Cheikh Moussa Ka nag gisee xasida gi toftalaatoon na ay way nag ci xasida ziyaaruk Cheikh Ibrahima Mbacke googu tuddee ko nag ku yëbu gëm ku yëbu weddi waaye nag moom Cheikh Moussa nag mi ngi wax nag ci biir xasida gi lii Cheikh Ibrahima ziyaare Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku ko nuyoo nit mu fay la ndax nag yéeme nag gu xasida gi yéeme ñu teewlu ko waa ji nuyoog Cheikh Bamba a ma demoon maa yomba moom la nuyoo ba muy siyaare bamba ku ko nuyoo buur yàlla mbër ma fay la yool màkka fay la sayxi bamba fay la te boole laa xalifatoom alxaaji mu faf la fay yoolub tabax jumaa ji loo sori sori ni ndar ak ndakaaru mbaasi gi coor mu mel ni yaa nga daaru ku yebbu gëm ku weddi man gëm naa ko alhamdulilahi nde nattu naa ko waaye nag bi Cheikh Ibrahima nag ñibbisee ab tukki wax na itam nag lu yéeme Cheikh Moussa Ka ndax Cheikh Moussa Ka nag xaritu ma nga doon xamal nag kii di Serigne Moussa Ka di ko wax ne nag atum ren mii suñ borom nag ñetti doomu aadama yi daal kenn war na cee génn àdduna muy yow Cheikh Moussa Ka ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak man mii nag di Ibrahima Mbacke Cheikh Moussa Ka nag nee na tekk nag ab diir ginnaaw bi nag la koy laaj ne baa du man mii di Moussa Ka Cheikh Ibrahima Mbacke nag di ko wax ne ko déedéet ndax yow kat suñ borom xamal na ma ne li nga war a bind nag ci yoon wi nag mëtagul te dese nga nag loo war a bind kon nag du yow Serigne Moussa Ka itam nag ba tey mi ngi koy laaj ne baa du Cheikh Mamadou Fadal mu di ko wax ne ko déedéet ndax Cheikh Mamadou Fadal Mbacke kat suñ borom xamal na ma ne lii di jumaa itam nag moo ko war a moo war a jébbale nag lii di caabi ji dese na ndax jumaa ji eggugul Cheikh Moussa Ka nag na tekk mu di ko xamal ne ko nag man mii nag di Ibrahima la ndax suñ boroom nag xamal na ma ne nag sama àpp bi mat na waaye nag lii di màggaluk Tuubaa gi nag laay xaar ginnaaw bu ñu màggalee ba noppi nag ab feebar nag dana ma daaneel bu ma feebar bi daanalee maa ngi sàkku nag ci yaw nga ñëw nekk nag sama buntum néeg di ma làddanti képp koo xam ne nii nag séq na maak moom xaadim rasuul su ñëwee nag bàyyi ko nag mu egsi gis ma képp koo xam ne nii nag mu bokk nag ci ñi nga xam ne nii nag dañoo xel na yam ci yow ndax yaay sama buntum néeg loo ko wax nag mel na ne maa ko wax ginnaaw bu ñu màggalee ba noppi nag la feebar boobu nag daanee loon Cheikh Ibrahima Mbacke mu tëdd ko nag ci kër boppam gii wuuf nag jumaa ji di kër mag moom gi Cheikh Moussa nag wéy na nag topp nag ndigalul Cheikh Ibrahima Mbacke loolu nekk itam buntum néegub Cheikh Ibrahima Mbacke képp koo xam ne nii ñëw na bokk ak Cheikh Ibrahima Mbacke xaadim rasul nag mu bakoo ma gis Cheikh Ibrahima Mbacke képp koo xam ne ñëw na nag di mag wala di ab taalibe Cheikh Moussa Ka nag dalal sam xel na ñaanal la nag nga ñetti weer ak fan nag yu mu tëdd feebar bi kon lii jaar na ceeg Cheikh Moussa Ka ba tey nag ci yéemeeg Cheikh Ibrahima Mbacke Léopold Sédar Senghor mi fi nekkoon président de la république nag mas na seet si Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag yabal ko itam nag ci Cheikh Ibrahima Mbacke ne ko nag dem fa lu mu la wax nag nga ñëw waxaat ma ko ginnaaw bu mu ñëwee fii ci Mbacke Baari ba Bawol fekk fi Cheikh Ibrahima Mbacke ab siège itam nag la Cheikh Ibrahima Mbacke nag tegoon tegoon ci nag Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor itam nag bañoon na caa toog Cheikh di ko xamal ne nag toog ci xanaa bëggoon nag yor réew mi Léopold Sédar Senghor nag di ko wax ne ko aha kay mu ne ko nag kon toog ginnaaw nag bu ci Léopold Sédar Senghor nag toogee Cheikh Ibrahima Mbacke na ko wax ne ni nga toogee nag ci siège bi ñëpp toog mu nekkit ku yéeme moom doomu Cheikhul Khadim bi ba na itim nag naari gànnaar yu bare bare bare bari way nañ nag Cheikh Ibrahima Mbacke ndax nekkoon na imaamu julli korité ak tëbaski ci dëkk bii nag di Ndar géej Mbacke baari gi nga nga xam ne nii nag moo ko doon nag ci waajuram xaadim rasuul ñu baree bari itam nag daa nañ ko fi fekk nag ngir di ko laaj si loolu itam nag tax na soo delloo nag ci mbindum Cheikh Moussa Ka ci biim ñuy wax nag jikkoy Cheikh Ibrahima Mbacke mi ko jaarale nag ci dëkk bii mu nekkoon nag di Mbacke Baari di ñu wax ne nag Cheikh Ibrahima Mbacke képp nag ko masaa fekk nag Mbacke Baari mu faj say aajo moo xam nitu nguur moo xam nag nit ku amul dara ndax bëgg-bëgg bu ko nit masaa fekke li ci Cheikh Moussa Ka bind yoonu murit nanuy siyaare Baari ndéem demu leen Tuubaa ki Mbacke Baari Cheikh Ibrahima mbàkkee nga fa toog di waare ku ñëw mu may la wata yaa ngay gaare watiir ya ak ford ya dañ daa gaare ak type quarante-cinq ya kaar ya baari deesu fa mar deesu fa mer day maare lépp ne gemm baari dootuñ xaari jannaatu adnin lay misaal fa baari yenant yol ya fa la boot yay jaari wa maskani sallim minal fujjaari wam nun alal ahli bi ma in jaari bàmbaa ko waxtu baaki bàkke baari ak daaru mën naan fa la ndox yay jaari seex a ki seef ñëpp a fa war di jaari kenn waru koo teggeeti ceer ci wiir wiir war a jaari ndaari te baari mat nag ndaari lil anwaari nasaraan ya ak safoor ya ak laxbaar yi ñoom ñëpp lay dimbalikal axyaar yi tabeem nga mel ni bàyyi ba day wisaare amu ca xejj ak seen ku ak si maare du toj këram deesu korang day gaare ku ñëw nu yow mu faca aajo ñaare masula delloo aji laaj fa baari billahi kii kenn waru koo linkaari tuubaa li man xad zaarahu fa baari waylun li man ankarahu fanaari min jumlatin niswaani wa sixaari min al muridina ma al kibaari mu wéy nag des nag mu doon nag ci seexul xaddim di mbàkke baari gi nekk ci mbàkke bawal ak dëkk bii mu gor nag sanc ko nag di daaru xaddim nekk nag ci wetu bétoo ak dëkk bii nag di tuubaa faal ginnaaw nag bu mu sancee dëkk boobu nag di daarul xaddim ñeenti daara itam nag la fa taxawaloon moom cheikh ibrahima mbàkke ñu mën cee ràññee daaray sëriñ cheikh fay daaray sëriñ cheikh loo daaray sëriñ saaliwu sekk ak daaray sëriñ moodu ja dëkk boobu itam nag di daarul xaddim ñu baree bari nag ci jàmbaar yi toppoon cheikh ibrahima mbàkke itam nag jote nañ ngërëm nag ci loxoy cheikh ibrahima mbàkke 1955 dëkk boobu itam nag dafa mujj gent ndax njaboot gi fi Cheikh Ibrahima Mbacke bàyyi woon itam ay tuur tànk lañ mu nekkoon itam nag ko am ko lëre ak i magam ndax tudde na kii di waajuram doom di sëriñ Touba Xaadim Rasul tudde na maama Mamor Anta Sali Mbacke doom di sëriñ Mamor Mbacke tudde na magam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doom tudde na magam Cheikh Mamadou Bachir Mbacke doom tudde na nag ab jigéenam di soxna Muslimatu Mbacke doom tudde na ki ko sëriñ Touba Cheikhul Xaadim joxoon nag mu nekk cëram di sëriñ na itam nag ñu ko tudde doom cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul itam tudde na ko doom sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke itam nag tudde na ko doom cheikh mamadul moustapha mbàkke bu ko tuddewul doom itam cheikh ibrahima moom cheikh mamadul moustapha mbàkke ku sëriñ ibrahima mbàkke ibnu xaadim rasul fonkoon la ba tax na itam nag daan na ko nemmeeku saa su ne doomam sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag ku wëlërante woon ak moom la magam sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi ku wëlërante woon moom la ndax saa su ne daana ñëw mbàkke baari nag di seet si rakkam ji sëriñ ousmane mbàkke nóoréy ni xaritu foo masaa gis sëñ Ibrahima Mbacke daa ko gis ci dëkk boobu nag di ndar géej saa bu fa Cheikh Ibrahima Mbacke daa dem nag di julli ji tëbaskee korité sëriñ Ousmane Mbacke nóoréy ni nag lay àndal ba tax na itam nag sëriñ Ousmane Mbacke nóoréy ni ci diirub li Cheikh Ibrahima Mbacke nekk nag ci kaw suufa saa bu masaa ñëw Touba këram lay dal Cheikh Moussa Ka ku masaa gis nag Cheikh Ibrahima Mbacke itam nag daa ko gis ba tax na itam nag kër Cheikh Ibrahima Mbacke itam nag la nekkoon féete fa moom itam nag laataa muy am na kër nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba kër sëriñ Ibrahima Mbacke nag la nekkoon loolu itam nag tax na itam nag bi sëriñ Ibrahima Mbacke nag di génn àdduna Serigne Moussa Ka itam moo nekkoon ab buntum néegam moo ko laddante ba ne Cheikh Ibrahima Mbacke nag génnee àdduna ba tax na itam nag wax na lu bare bare bare bare bare ci Cheikh Ibrahima Mbacke bind na itam nag lu bare bare bare bare bare nag ci Cheikh Ibrahima Mbacke xam naa daal ku bëgg lim njariñul Cheikh Ibrahima Mbacke ak kum amaloon teen kóllëre daa juum ci gàttal daal doomu Seexul Xaddim bi ñëpp fonkoon nañ ko ngir Xaadim Rasuul doomu soxna Faatumata Soxraaja ak ku baax ki génn àdduna bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi nag di weer rakkaat ji gàmmu ci atum 1374 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan juróom benn ci weer wi nag di weer rakkaat ji gàmmu ci atum 1374 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 21 janvier 1955 vendredi 21 janvier 1955 ci kërug boppam nag di kër gi ñu tudde kër mag moom jamono ji ci kër googu nag la sëriñ Ibrahima Mbàkke nag génnee àdduna ci feebar nag bu ko tëral ay atam nag tolloon nag ci ñeen fukki at ak ñett sëriñ Abdou abdourahman mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko jullee ginnaaw ñu ko yëgalee nag ki fi toogoon toogaayu waajuram di cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasuul ñu jébbal ko boroomam ci booy dugg nag ci armeer yu mag yi ci wetu nag barabu magam ji cheikh mahamadou lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasuul ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ ibrahima mbàkke kam faye woon sëriñ ndaam abdourahman loo di sëriñ ndaam moom soxna atta moo ko wuutu ci atu 1955 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam nag te cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróomam boobu di Cheikh Ibrahima Mbacke ak mbooleem nag ñi mu séqal Cheikh Ibrahima Mbacke Cheikh Ibrahima Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku wala nag am na bis nag buñ ko daa fàttaliku ndax ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi nag di weer rakkaat ji gàmmu ginnaaw bu mu ko génnee àdduna ci atum 1955 taawam bii ko wuutu woon di sëriñ Abdourahmane Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Ndaam moom soxna Atta daana ko màggal nag ci bëccëg boobu di bëccëgu fukki fan benn ci weer wi na ko nag ci li ko dale 1956 ba ci atum 1974 ci atum 1975 nag ginnaaw bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke toogee nag ñetteelu xalifa Cheikhul Khadim ginnaaw bu fa sëriñ Ndaam moom soxna Atta mii nag demee doon ko yëgal nag bisu magam boobu di sëriñ Ibrahima Mbacke ci la ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag di xamal ne bisi làqu yooyu daal bu sañoon des na ko bàyyee màggal mi ngi sàkku nag ci sëriñ Abdourahmane Mbacke mi ñu gën koo xam ci sëriñ Ndaam moom soxna Atta ngir nag bis boobu nag su ko mënoon a bàyyi moo gën la nag sëriñ Abdourahmane Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Ndaam moom soxna atta bàyyi bis boobu nag jël nag bëccëgu fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru korité di bis bi nga xam ne nii nag la sëriñ ibrahima mbàkke nag wéele woon ndigalul bi sëriñ ibrahima mbàkke nag damoon jël sëriñ ibrahima mbàkke nag moo ko donn nag ca waajuram wa xaadim rasool di mbàkke baari nekk nag ci dëkk bii nag di mbàkke baw taxawal ñu ñaan ca doomu cheikhul xadim nga kam faye woon yonent yàlla ibrahima yàlla nañu ko yàlla fayal nag te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay ibrahima amin ibrahima amin ibrahima amin ibrahima amin ibrahima